alaikum wa rahmatullah mbokk yi daleen ak jàmm ñu ngi fi ci faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de médecine bu ñu ko waxé jamono ji ben cas dina attirer sunu attention du nu wax le intégralement par le respect du secret médical mais SOD si ko waxé Sénégal yépp dina am sen xel fu dem en année de thèse euh, askanam jëriñ réewam ñu gis ci euh, campagne médicale sociale tay fièvre danel ko fièvre bu metti bu laaj alal ju bari pour ñu mën Sénégal faculté de médecine Dakar euh, manko pour mettre euh, ku di nekk sa pierre à l'édifice pour ñu mën ko fecc ni mu mu gëné a mucc ayib mu mëna dimbalé dimbale euh, mëna dimbalé ay waajuram way mëna dimbalé aussi réewam ci lolu motax ñu ñëw ci fi ci faculté de médecine war waxtaan ak ñi nga xamante ne camarade lañ le président de la faculté de médecine dinañ ci yàbbi ñu xol naka lañ wara mëna def lan la Sénégal wara mëna def pour venir au secours ci domam bo xamanté il a été utile pour sa société Alun Dien, ñu dem waxtaan ak le président de la faculté de médecine pour xam SOD lan moo ko dal naka la doon dundee ak pour venir ko au secours à topp Nous kay euh, Alioune kon euh, le président de l'amicale euh, des étudiants de la faculté de médecine amicale collecte pour SOD Mohamed Kébé nous la ziar la internet Sow remercier dalal aussi remercier mbokk internet Euh, buñ la laajoon euh, seen camarade SOD euh, li nga xamante ne xam ngeen ko ci moom naka la mel son caractère une présentation de ki nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee tey. waaw tàmbale woon fi jàng ba yegg ci lu ñuy wax huitième année maanaam fi may wax ak yow nii waroon na fekk moom mu soutenir thèse am ba pare si fac bi xëy na jàngoro bu ko dal gàllankoor ko moo tax ba léegi nii mu nekk étudiant. mu nekkoon étudiant boo xamante ni aussi dafa amoon pas-pas ñu ràññee woon ko trop si mu doon yëngu si lu ñuy wax campagne médicale ak euh, don de médicament gratuit boo xamante ni fac médecine seen amicale étudiants yi dañoo baaxoo di ko organiser. maanaam dañuy dem si gox boo xamante ni jàpp nañ ni foofu nit ñi dañoo xaw a ndóol ba mënuñ am faj bu baax wala mënuñ am garab luñ jënde garab. ñun ñu fexe suñuy pexe ba mën leen mën leen fekk fañ ne faj leen aussi dajale si liñ yor jënd garab pour jox leen ko waaye SOD dafa bokkoon si ñi nga xamante ñoom ñoo gënoon a ràññeeku ci loolu maanaam suñ ko doon def ñoom dañ ci doon sawar te daf si doon def kéem kattanam pour que loolu chaque année moom mu nekkoon si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci participer ñu gën leen ci ràññee mu nekkoon aussi étudiant bu brillant boo xamante ni da doon góorgóorlu trop si njàngam nekkoon aussi étudiant boo xamante ni da doon maanaam pare njàngam ba doon chirurgie pédiatre maanaam chirurgien boo xamante ni wàllum xale lay faj loolu noonu boo gisoon mu doon ko moo nekkoon pour mën a dimbale xale yi nekk Sénégal mais aussi mën a dimbale waajuru xale yi nekk Sénégal ndax yaakaar naa ni doom ci xool la sax te képp xam nga ni sa doom su amee jàmm rek daanaka yow sa jàmm day jege waaw loolu daal ci gàttal moom lañ mënoon wax comme présentation ci SOD. moom fan la fan la cosaanoo waaw fi mu cosaanoo si fii la dëkk ci région cap vert naam man duma bëgg di wax euh, fi nga xamante ni exactement fa la nekk bon même si day am par parfois si réseau yi waaye man sil ma jàpp mooy comme que ñun dañ koy dimbale dañoo war a fexe aussi ba pression bi nga xamante ni mooy nekk si moom mu nekk pression ñu minimiser ko le maximum possible te pour ñu def loolu yaakaar naa ni di xaw a nëbbu askanam askanu waayam di xawoon na bu aussi turam ba tax na sax ñu utal ko diminutif loolu day bokk ci loo xamante ni daf koy daf koy daf koy dimbale. waaye SOD bi c'est pour respecter le secret médical moo tax doo joxe yenn critères yi ci fu mu dëkk pour benn identification am. waaw SOD bi c'est pour respecter euh, euh, le secret médical comme ni nga ko waxee mais aussi c'est pour éviter que moom muy gën am pression nit ñi di ko gën di woo nit ñi di ko gën di contacter loolu yëpp lañ ci xalaat moo tax ñu utal ko diminutif moo tax aussi ñuy yem rek si wax ne moom mi ngi dëkk fii si région Cap-Vert région Cap-Vert c'est-à-dire de Dakar waaye nag quartier bi mu dëkk exactement man du may du faral di ko wax. Euh, boobu ba léegi am nga contact ak euh, famille wam Eh, dem nga këram eh, naka la doon dundee en dehors de la eh, l' espace universitaire waaw booba léegi ñu ngi déggante fréquemment di giseeg aussi voilà yaakaar naa ni moom mi ngi koy dundee ci ni mu baaxee mooy ni gëm yàlla la ci àndal parce que aussi nit damay faral di wax ne bu fekkee da nga jëloon lépp jox sa yàlla yow lu la dal rek voilà da ngay da ngay da ngay ànd ak ngëm moo tax fi mu toll nii gaa feebar bi xaw na ko sonal ndax uh, sax bu ngeen xoolee image yi nga xamante ne xawoon na daw si réseaux sociaux yi ngeen gis ne daanaka feebar bi daf koo xaw a transformé mais malgré ça mi ngi ànd ak ngëm ñun ñi ànd ak moom aussi si xeex bi ñu ngi ànd ak te gëm nañ ne ni kaw population sénégalaise bi defee xam ne ñoom ñëpp dañoo jóg def benn bloc muy presse bi di di di di di yeneen secteurs yi ñoom ñëpp ñu fas yéene jàppale ko pour mu mën a am ten pour mu mën a ñëw su amee tan mën a dimbalee suñuy doom ëllëg yaakaar naa ni autorités yi aussi dinañ raisonner si loolu pour que ñun ñëpp ñu àndandoor ñu sauver ki nga xamante ni mooy SOD ndax moom su sauver su sauver ëllëg mën na sauver suñuy doomi doomi doom Euh, waaw euh, comme ni ngeen ko xamee ñu ngi jàkkaarloo ak Mouhamed Kébé di président de l'amicale des euh, étudiants de la faculté de médecine kon c'est un médecin ki nga xamante ne moom étudiant la ci faculté bii nii moom nekk en première année de thèse je pense bien Mouhamed Kébé tey bu ñu doon xamaleeg li nga xamante ne moom moo ko dal nee nañu benn maladie bu rare la Sénégalais yu bëri dañuy poser wu des questions sur sur sur de quelle maladie il s'agit est-ce que mën nga ñëw Euh, defal benn euh, diagnostic pour euh, reprendre vos jargons. waaw pour ma defal leen diagnostic maanaam élucider touti ci feebar boobu aplasie médullaire la ko tubaab di wax suñ ko doon tekk ci olof dañuy wax ne day firnde ndóolu yi nga xamante ni ñoom ñooy meññi ay cellules maanaam ay dundiwaay yoo xamante ni ñu ngi ci dereetu doomu aadama ñu ci ràññee li li mel ni globule rouge di ci ràññee aussi lu mel ni globule blanc di ci ràññee aussi lu mel ni plaquette boo xoolee globule rouge yi ñoom dañoo am rôle boo xamante ni bu considérable la ci jël euh, oxygène bi di ko circuler loo ci yaramu doomu aadama boo xoolee globule blanc ñoom dañuy dañuy am rôle bu important ci xeexak ak doomu jàngoro yi nga xamante ni ñoom ñooy attaqué doomu aadama boo xoolee plaquette aussi ñoom dañuy jouer rôle bu am solo ci coagulation sang doomu aadama maanaam feebar bi kon dañuy seetlu ne ñetti éléments yooyu ma tudd yëpp dañuy manqué loolu mooy waral day manifesté woo ci nit ki di perte deret day manifesté woo aussi si si si nit ki di miir maanaam di li olof di wax manqué deret ngay miir voilà sey bët du xaw a leer day manifesté wo aussi si nit ki lu ko song da koy gaaw a daan parce que plaquettes yooyu globules blancs yooyu moo waxoon ñoom ñooy xeexak ak doomu jàngoro yi comme boo demee ba amatoo ko immunologie bi comme ni nga ko waxee day wàññeeku trop trop trop ba yow lu la song rek da lay gaaw a mën a faagaagal ndax boobu bokkul ak euh, lu dafa dama koy dégg mais c'est un profane qui bokkul ak leucémie euh, non bokkul ak leucémie hmm. bokkul ak leucémie suñ waxee leucémie yooyu yeneen xeetu xeetu feebar la donc lui il est obligé par exemple bon je ne sais pas est-ce que dafay le le direct ko changer régulièrement waaw il est day obligé faire la transfusion li nga xamante maintenir concentré parce que comme ni ma ko dafa nek pour le moment si impossibilité moom mu defaral ko boppam moo tax à chaque fois day soxla ñu ko koy transfuser CNTS CNTS la koy defee d' ñuy profité si loolu di sant ñëpp ñi nga xamante ni boobu ba léegi ñoom ñooy dem foofu di may deret di ñaax aussi askan bi ne leen képp ku ci bëgg a jàpp ci don de sang yooyu nga xamante ni pour l' instant koy maintenir mën nga dem CNTS te boo demee CNTS da ngay ne rek damay deret pour Sadio Ousmane euh, pour SOD dangay ngay maye deret pour SOD après ñoom dinañ ko dinañ ko ko jottali te groupe bu ne mën na ko may ndax moom concentré yi rek souvent lay faral di soxla. maanaam kanam ba euh, ñu am groupe sanguin ban ñoom ñoo mën a dem. Euh, groupe sanguin bu mu mënta doon mën na ko may ndax comme ni ma ko waxee moom concentré yi lay récupérer après mu mu mu utiliser. concentré yooyu amul compatibilité. concentré bu fekké né concentré globulaire la du am comptable, du am compatibilité parce que dañuy dindi yeneen yi nga xamanteni ñom ñom ñom ñom ñoom ñoo indi euh, effet secondaire incompatibilité euh, ci ci ci euh, campagne de collecte bi balaa ñu cee yexi si bu bu bu demee ci ban réew lañ ko wara fajé opération la intervention yi est-ce que dina permettre à ce que définitivement mu wér wala c'est une maladie chronique day wér day feebar boo xamante ni la bu raar la li koy faj aussi lu chair la mais seetlu nañ ne feebar bu jafe wala faj la voilà ndax euh, geref bi naam duñ ko defee Sénégal boo demee réew mu mel ni France fi nga xamante ni ñoom ñoo ñu defal débine mën nañ ko faj ñoom am nañ expertise bu bu bu certaine que ni ñoom mën nañ ko faj te yaa incha allah buñ ko fajee dina wér te dina mën a ñëw mu dimbale réewam. mais euh, France euh, naka lañ def ba xamné mën nañ ko fait dañ ko dañ ko defal euh, diagnostic <coughs> da ngeen envoyé son dossier médical naka ngeen amé certitude que ni fofu bu fa démé effectivement dina wér définitivement. waaw ñun biñ xamé né biñ xamé lu ko dal xam ñun dañuy ne dañoo nekk aussi ay agent de santé xaw xam tuuti aussi si si si domaine médical voilà ñun amoon nañ information ne feebar bobu duñ ko fajee Sénégal mais aussi xamone nañ ne fu melni France dañ ko fay faj si nonu lañ jël dossier bi voilà de connivence avec euh, médecin bi nek Sénégal ak euh, médecin hôpital yu nek falé ci Paris si hôpital bi ñuy wax Saint-Louis ñu tënk ben protocole bo xamante ni mën nañ ko ci faj si jamm ak jamm mu am wér. kon donc euh, yeen envoyé ngeen correspondance bañ confirmer leen ne dinañ ko mëna faj mais à quel prix. waaw envoyé nañ correspondance ba mu bañ confirmer dina ko mën a faj te yaakaar naa ni sax euh, prix bi ngay laaj noonu moom moo waral démarche si am yëpp après mu am si parce que c'est un prix à hauteur de cent quatre-vingts millions voilà te boobu léegi gis nañ ne population yëpp ñu ngi siy jàpp ñu la ñuy continuer di leen ñaax pour ñu mën a continuer di si jàpp deux cent quatre-vingts millions waaw francs CFA Euh, donc euh, parce que di ci peu maintenant, bon réseaux sociaux tout le monde parle mais gars yi ñu ngi doon bind mais donc effectivement euh, la somme exacte 280 millions là. millions là. opération lay donne wala dañ koy greffel ben organe rek. li ñu koy greffel mooy greffe de moelle osseuse waaw li nga xamanteni ni ñoom maanaam cellule yi nga xamanteni ni moom moo manqué ci loolu lañ koy greffel pour mu mën développer wat mën commencer wat di générer ay globules rouges comme nous ko ku nek di défé lolu lolu amna amna compatibilité wala tamit comme ni démé demee ci yenen yi rek nga wax la. waaw lolu il faut un donneur te donneur yoy noonu dañuy compatible mais donneur yoy pour le cas l'espèce amul problème ndax amna ay donneur lii am nekk problème rek ci cas bi comme niñ ko waxee fépp ñu bëri xamee ko ko mooy problème financier bi coût bi nga xamante ni deux cent quatre-vingts millions la te ba léegi dajaleeguñ somb toll noonu. Euh, euh, Mouhamed man la l'agent de santé euh, tey yéen ñi nga xamante ne yéen les acteurs du secteur Sénégal manqué lu ni mel ba doomam bu war a mën a rendre. am utilité ci euh, askanam euh, nar cee sonn en tant que acteur de la santé matériel yooyu noonu nga xamante mom mo waral euh, duñ mëna a yenn est-ce que foog c'est à notre portée ci système sanitaire au Sénégal. waaw c'est à notre portée yaakaar naa ni lépp organisation la laaj système santé Sénégal mën naa ni xaw na sooxe suñ ko comparé ak réew yu bëri. te yaakaaruma ni noonu la war a demee ndax dafa nekk système de santé aussi bu ancien la bu ancien bien vrai bien avant médecine coloniale Sénégal dañ fi doon def médecine africaine boo xamante ni bu am doole la yaakaar naa ni bu beneen médecine ñëwee yokku ci dañoo waroon fexe ba organiser wu pour que lépp lu ñuy def feneen lu ci ëpp ñu mën ko defee fii naam évacuation wala jël sa doom yóbbu ko benn réew mu faju réew dañ koy def mais Sénégal niñ koy defee ñun seetlu nañ ni aussi bëri na. waaw ci lu gënoon daal mooy ñu wàññi ko ba moyens yu bëri yoo xam ne dañ koy ñàkk foofu voilà ñu ñu fexe ba. investir ko fii pour mu mën ñu jural lu bëree bëree bari surtout ay amélioration ci domaine santé bi mais aussi souvent les évacuations texte dina koy waral voilà texte loi yoo xamante ni day interdire par exemple ben acte ñu def ko ci réew mi loolu yëpp yaakaar naa ni waxtaan la laaj ñëpp ñu ko seq xool ci ñu fexe daal ba lever léppi obstacle yoo xamante ni day yokk maanaam li ñuy wooyee tourisme hospitalier. Euh, loolu dinañ ci ñëwaat balaa ñoo tëj jotaay bi mais moom Mouhamed Kébé nekk président de l'amicale amicale bi tamit moom mooy géré campagne de collecte euh, des fonds boobu noonu euh, Mouhamed Kébé bëggoon nañ xam fan ngeen ci toll yéen a ngi soxla 280 millions ñaata ngeen collecté gu boobu ba léegi. waaw ci bilan bi ñu mujjee def ñu ngi collecté woon 65 millions. voilà ci noonu aussi am na yeneen yoo xamante ni ay fonds la yu ñu nit ñi dégg voilà ñu ngi ci xaar aussi di di am yaakaar ni voilà euh, dina dinañ mën a arrivé ci objectif bu ñu fixé wu ci fan yi gën a néew. mais euh, l'objectif est encore un peu loin mu ngi xaw a mu xaw a jël temps euh, tey yéen ku leen bëggoon a contacter ku bëggoon a

boo xam ne waa Orange Money ñoom ñoo ñu ko jagleel képp ku ñu bëgg participer soo envoyé dinañ ci jot incha allah mu am ay numéro yeneen yoo xamante ni aussi ay mobile ma li ñuy wax mobile money la maanaam ay free money maanaam ay e money yooyu yëpp am nañ ko ay Wave yooyu yëpp am nañ ko ci suñuy contact via affice bi nga xamante ni dinañ ko partager suñ mbokku internautes yi bu ko ci xool di nga ko ci gis mu am aussi yeneen lien yoo xamante ni. Euh, lien list ci la fundraising ak euh, benn lien boo xamante ni ONG Sutura ñoom ñoo ñu ko defal mu doon lien yoo xamante ni képp ku nekk sax bitim réew soo bëggee participer incha allah boo ko envoyé via cagnotte yooyu ñun dinañ ci jot. incha allah tey euh, les autorités ñi nga xamante ne tamit ñoo nekk ci réew mi en premier chef le président de la république. soxnaam euh, fondation Servir le Sénégal ministère de la santé structure étatique yu ni mel est-ce que contacté ngeen leen est-ce que jot ngeen rencontré ak ñooñu est-ce que euh, am nañu lu ñu yëy yàbbi ci mbir mi. waaw contacté nañ leen début bi xawoon na sax parce que début bi man personnellement dénoncé woon naa ko via sax communiqué boo xamante ni amical moo ko def ma signé ko. man ni maa ngi dénoncé ci ni mu gën a fooree mooy euh, passivité bi nga xamante ni moom la autorité bi di def ci dossier bi waaye booba léegi nag seetlu nañ ne ñoom mu ngi am ay amélioration ndax ñoo ngi def ay rencontre ñoom aussi ils se sont saisis du dossier te am naa yaakaar ni li ci war dinañ ko ci def parce que aussi ñun suñ leen jiitalee suñ leen jiitalee dañoo am benn confiance ci ñoom te yaakaar si ñoom aussi suñ tollee si jafe-jafe yu mel nii mu mu ub suñ bopp voilà ñoom ñu indil ñu solution boo xamante ni bu efficace lay doon. ñan ngeen ñan ngeen jot a gisagum ci autorités yi par exemple. waaw gis nañ autorité yëpp gis nañ autorités universitaires yëpp. bon naam souvent du nekk première personne bi ngay gis mais di nga gis koo xamante ni au moins si département boobu mel ni ministère de l' enseignement supérieur gis nañ kenn koo xam ne fa bokk envoyé wante nañ ay mail waxtaan nañ aussi si yaatu gis nañ aussi fondation Servir Sénégal bindoon nañ leen bind nañ aussi autorités yi nekk université yëpp mu nekk rectorat mu nekk kuddu voilà bind nañ aussi ñi nga xamante ni ñooy ministère de la santé tontu nañ fondation le Sénégal sax euh, bokkoon na si ñëpp ñi njëkk ñoo xamante ni am na lu ñu jotoon jox mais ñu ngi la ñuy ñaaxal aussi ndax euh, li ñu soxla daal moo nekk loo xam ne lu xaw a takku la voilà bindaat nañ leen te am nañ yaakaar ni aussi ñoom dineen gën a sensibiliser aussi dossier bi gën ñu see gën a jàppale. da ngeen nekk en mouvement d'humeur nii nii nii pour essayer de mettre la pression wala wala wàcc ngeen euh, yoon boobu wala yéen ci ba léegi. waaw ñun dañ ni liñ jàpp mooy fac médecine mënul commencé waat beneen année universitaire tant que indi wuñ solution ci jàngoro bi nga xamante ni moom moo moom moo dal suñu suñu euh, camarade muy SOD et tant que aussi autorité bi mettrul tout en place pour ñu mën ko jël ñu évacuer ko pour mu mën a dem euh, am ay soins appropriés waaw fu mu toll nii ñun dañoo nekk vacances parce que fac médecine bi mu paree année universitaire am yàggul mais dañ ne année universitaire bii di ñëw muy deux mille vingt quatre duñ ko tàmbali tant que lii nii utuñ ci solution boo xamante ni bu efficace la. waaw kooku Mouhamed euh, Kébé euh, Mouhamed euh, maa man koy fàttali agent de santé nga acteur nga ci secteur bobu noonu tay bo gisee kaaw SOD euh, gisaat ay yenen cas tax yag ngeen ci ay campagne médicale yag ngeen ci hôpitaux yi xam ngeen comprendre ngeen système bi ni muy demee peut-être que bi ni euh, lu lu fës la c'est la partie visible de l'iceberg mais Sénégal université ci bopam euh, amna ay cas yo xamante ni la démé ay fièvre ay jàngoro yàq jàngu kenn yàq espoiru famille nekkoon loo xamante ne potentiellement mënoon na nekk benn euh, lu am solo ci askan wi d'autant plus que gis nañ suñu système sanitaire ni on a plus besoin de personnel médical coronavirus wan na ne euh, on est vulnérable tey boo def une analyse globale de cette situation là du système sanitaire sénégalais Il y a une inquiétude il y a une solution est préconiser pour que plus jamais ça parce que dina leer ne am na étudiants yu dundou li ba génn àdduna te kenn yëgu ko euh, Mohamed Kébé ñu bàyyi la nga def ñu ben diagnostic sans complaisance du système sanitaire sénégalais ak solution yan ngay préconiser bismillah waaw euh, jàngat bi ñuy am ci système sanitaire sénégalais yaakaar naa ni waxoon naa ko ci njëlbeen sax mooy maanaam dafa nekk système sanitaire boo xamante ni dañ koy xoolee ci système sanitaire yi nekk Afrique francophone noir de manière générale mu nekk système sanitaire boo xam ne dafa sooxe voilà te yaakaar naa ni fi mu gën a sooxee mooy ci wàllu euh, technologie dañoo manqué uti yu bëri yoo xamante ni xëy na am na fi amu fi wala bu fi amee aussi ni fi waroon matee wu ko yaakaar naa ni loolu yëpp day laaj benn jàngat bu yaatu bu war a jógee d'abord ci autorités yi nga xamante ni ñoo yilif réew mi war a jógee aussi si autorités yi yilif wàllum santé war aussi ñëw si ñëpp ñu nga xamante ni ñoo yëngatu si wàllum santé ñun ñëpp ñu toog xool ñu jàngat daal xool lan moo ñu manqué aussi ñu xool nan lañ koy mën a mën a mën a dabaatale si lu mu gën a gaawee parce que nit ñi fu mu ne nii xaaruñ ñu boo jëlee réew mu mel ni Maroc mi ngi avancé si wàllu médecine réew mu mel ni Tunisie mi ngi avancé te yaakaar naa ni ñoom ni ñuy gën a rawee rek ñun ñuy gën a am problème ñuy gën a am complexe aussi devant ñoom naam Sénégal seetlu nañ ne booy xool maanaam ci xam-xam wàllu médecine amul lenn lum ci lum ci nawee ñenn ñi amul lenn aussi lum ci xoolee bët ñu bëri. ñoom dama leen di gis ñuy jàngee fii marocain yee tunisien ñoom dañuy ñëw ba fii pour sàkku si xam-xam comment ça fait ñun ñu am système sanitaire bon euh, loolu ay coopération internationale lañ koy tuddee réew mu nekk day dem beneen réew di jàngi réew aussi beneen réew moom aussi di fi ñëw di jàng yaakaar naa ko Sénégal di defee li ko noonu la ko Maroc di defee beneen réew aussi noonu la koy defee waaye li ëpp solo daal man ci sama gis-gis mooy voilà ñu fexe ba xool nan la ñuy gën a dëgëralaatee suñu système sanitaire voilà fexe aussi ba li ñu gars yi rawee ñu jéem a jéem koo dame naam sax am na jéego yu ñu ciy teg parce que aussi ren gis nañ ne en terme d'acquisition de de de de matériaux médicaux am na lu bari luñ ci def gis nañ ne benn service maladie infectieuse tabax nañ ko gis nañ ay hôpitaux yu ñuy tabax si yenn région yi waaye yaakaar naa ni luñ ci def doyul. doyul doyul santé amul prix comme ni ñu koy waxee euh, balaa ñu yëkkati jotaay bi rek ñu laaj la euh, SOD comment il va euh, fan la nekk situation état de santé am fi mu toll nii est-ce que mu stable. waaw euh, état de santé fu mu toll nii lu préoccupant la comme ni ma ko waxee woon ndax euh, aussi waaw ñoo ngi gisee ñoo ngi gisee état de santé lu préoccupant la naam ni ma ko waxee woon gëm yàlla la ci àndal ñun ñëpp ñu àndal si tey waaye aussi dañ siy ñaax voilà ñëpp sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi ko dimbale ba fii ñu leen ci gërëm ñi nga xamante ni aussi fas nañ yéene euh, dimbale ko ñu leen ñuy gërëm di leen ñaax aussi voilà di ñaax aussi état bi pour lépp loo xamante ni mën nañ ko ci daal ñu taxaw ko ci ndax dossier boo xamante ni lépp luñ ci def rek ëpp na ko fu mu toll nii mi ngi mi ngi ci kër ci kër la ne waaye régulièrement day dem fi nga xamante ni CNTS la pour di fa def transition yoo xamante ni moom moo koy tax muy mën a muy mën a tenir kër googu mu nekk ñan ñoo ko jël wala këram waaw kër goo mu nekk gars yi ñoo organisé wu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yóbbu ko fa voilà ñu yóbbu ko fa pour que mu mën a nekk à les mu mën a mu mën a aussi stable ba yenn pression yi mën a bañ a dal ci moom mhm. waaw jërëjëf euh, Alioune comme ñoo ko déggandoo euh, mbir maa ngi noonu loolu moom mooy ay di jàmbat sénégalais yi ñu leen di bàyyi wa doon xel que ni euh, du du du du kenn mu munu cee mucc parce que feebar ak doomu aadama ñoom ñoo ànd mais euh, les bonnes volontés ñi nga xamante ne ñi ngi ci réew mi képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi am euh, yàlla suturaal la yàlla xam na ku nekk loola doy ku mu jox lu ëpp rek dala séddale loo euh nit muy nek dans le besoin liñ mëna def ci futilité li de def ci futilité bari na mais li jaamu yalla la venir en aide qui nga xamantene soxla nañu ko may interpeller en premier chef les étudiants parce que ndimbal na ca fekk loxol borom charité bien ordonnée commence par soi ici université Cheikh Anta Diop

au nom de la nation ñu def ko par patriotisme Alioune mën nga bës of asalaamaaleykum wa rahmatullah